mbokki internetu seen acti tv ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen wax ni rek dal leen ak jàmm fii ci seen chaîne youtube seen acti tv la chaîne au cœur de l'information tey nag duñuy daal di ñëw ak yéen ci di gën a fës xibaar yi xibaar yi ndiki tey nag dañ ko dox fii ci Sénégal ginnaaw nag ab QG bu ñu amaloon foofu ci assemblée nationale euh, bu Ndakaaru ab euh, ñaawteef daal moo fa daal di xew ginnaaw ba député bii di Aminy bi dafa taxaw rek euh, ci temps de problème yàq lu ko neex ki nga xam ni moo di sëñ mustafa si waaye nag yàq lu ko neex ñi nga xam ne ay détracteur lañ contre président Macky Sall ba tax na député xam ni ginnaaw ba mu coalisé nekkoon na fi ab député bu Pire daal di jug rek daal di koy dóor ba kookee di Aminy bi daal di xam biir ensemble laataa muy xam nag jot nañoo xeex ndax moom mee di Aminy bi jot na yëkkati ab chaise rek fas yéene ko woon koo yenn dal na ko wala dalu ko nag chaise ba nag lay mel ni def na ay gaañu gaañu ci ku góor ki waaye nag moom mee di Aminy bi dafa mujjee xam ba di nga xam ne moo di sapeur moo ko daal di jël si foofee ca biir ensemble naka noonu nag ab médecin ba mu ko daal consulter rek la xam ne rek ki nga xam ne moo di Amady bi dafa fekkoon mu nekk en état de grossesse maanaam bi lépp député ba muy jóg di songo ki nga xam ne moo di Amady bi nekkoon en état de grossesse li xew assemblée nationale nag ñaaw na te kenn rek rafetlu ko doy na waar ba fu doy waar jéggi dayoo waaye bu ñu jógee foofu dañ daan di daal di dem foofee ca coupe du monde bi am foofee ca Qatar foofee nag ca dawaalee daal di xewee équipe bu Maroc bi daal di na qualifié première ci poulam euh, Belgique euh, moom mee nag di Maroc qualifié na tey de euh, contre Canada Maroc nag euh, fi mu toll teme nag bokk na ci meilleure équipe africaine ndax ñi ngi def performance yu daal di doy waar dañu koy ñaanal rek bonne suite te nag mu àgg fu sore sore ci coupe du monde bile ba tey ci coupe du monde bi dañuy daal di dese nii daal di dem ci match bu démb bi joxoon ci diggante ki nga xam ne moo di Tunisie ak équipe bu France Tunisie nag daal dina toog waaye nag ba muy toog mu ne na ci li nga xam ne moo di France équipe 1 à 0 la match bi li mujjee laata loolu nag taxul ni euh, malgré li nga xam ne moo di Tunisie daal dina gagné bi les matchs dafa mujjee daal di toog di fàttali rek nag ginnaaw loolu équipe euh, bu France dafa daal di dugal ab plante rek ngir rek biwam boobu yu refusé ndaxte nag ginnaaw ba ko ma ni un 0 ci ab hors-jeu équipe bu France bi daal da daal di dugal benn bii naka noonu nag arbitre bi daal di dem xool VAR daal di rek ab orgel la kon kenn du ko concédé daal di annulé bii ba li mel nag métti waa France damaa yaakaar ni rek euh, défaite bi nga xam ni euh, am nañ ko ci kanamu africain yi moo leen di métti mais bi lépp match ko seetaan rek xam na bi lépp euh, bi du leen lu dul orgel dañuy daal di toog rek di déglu rek di xool plainte boobu fa lay lay mujj lu ci mënti am rek dinañ leen ko dëgtam la fii lay xewee seen chaîne YouTube SENactu TV dañuy daal di jóge foofu nag di leen wax ne na affronté Sénégal ba ñuy daal di dem ci huitième de finale niki dimanche 4 décembre dinañ am équipe bi di Angleterre Sénégal dina affronté Angleterre dimanche 4 septembre 4 décembre à 19h heure Sénégal waaye bu ñuy jógee foofu dañuy daal di ñëwaat euh, Sénégal waaye dañuy dem foofee ca Diourbel ginnaaw nag ay ñeent ponk la góor ñoo doon daal di jéem a euh, violer ab magum jëm boo xam te nag ab femme mariée li ni mel nag Sénégal la xewee foofee ca Diourbel juróom ñooñee nag dañoo fekk euh, moom euh, femme mariée boobu tëdd di nelaw ñu fas yéene ko daal di violé laataa noonu nag avant ñu koy daal di simmi moom mee di ndaw si dafa jël ab paaka bu mu njege naayoo woon rek daal di koy jam kenn ci ñoom ba sax nag euh, moom mee mu jam paaka bi di lépp paaka ci kanamam la dal ba mu génn ceek gaañu gaañu bu daal di met ba tax nag police mujjee naa ko topp ba daal di koy jàpp daal di koy defeere ñeent ñi si des nag fi mu tollu tembe ñoom la ñuy daal di wër di fàttali rek bi lépp ndaw nag jotu jotuñu koo violé ndax laataa ñu egg ci kaw mujjee nañ koo wallu dañuy daal di jógee Sénégal dañuy daal di dem Dubaï ginnaaw nag coowul hôtesse de l'air bii di aade aade nag bi lépp coow bu mu ko toppee du tey ndax too coow li ça remonte de 2016 ginnaaw nag moom aade bu mu nekkoon en plein milieu de showbiz nekk doon nag euh, dund vidéo leaks moom mooy di aade dafa daal di ñëwoon euh, Sénégal mu waroon dellu ngir rek daal di àggali service am waaye moom mooy di aade mu jul daal moo di ab euh, vacance am bu daal di neex naka noonu daal la jëlee ay coordonnées daal di koy fileeb ab ñàkk bi lépp ñàkk nag moo profité si coordonnées yooyu nga xam ne kii di aadee file na ko di jënd ay billets di ko jaayaat di luubal di luubal ba tax na nag ñàkk boobee daal di daw waaye moom moomu aadee dañ ko jàppoon loolu nag 2016 la xewoon naka noonu nag si la papam daal di investir ba papam daal di dugalee loxoom di nekk ab euh, koo xamante ni dafa influence bi dëkk bi ñu daal di koy euh, sauver ba mënuñu ko tëj kaso waaye nag bi lépp coow kaw da koo topp ndax euh, nakate depuis boobu li nga xam ne moo di Dubai Émirats Arabes Unis ñu ko daal di wër moo tax nag naka mu ànd ak gaynde yooyu Sénégal yi ba mu ne cëpp Dubai moom mee di aadee dañ ko daal di jàpp rek kaso fi mu toll tembe nag ci loxol yoon ñu nekk ubbil ko ab conseiller fi mu toll tembe nag euh, tranché guñu lii nag moo daal hôtesse de l'air bi di aadee bu ñu jugee foofu dañuy daal dellu foofee ca coupe du monde ginnaaw ba nga xam ne euh, li nga xam ne moo di FIFA dafa daal di ubbi ab procédure disciplinaire ci équipe nationale bi di Sénégal li ko waral nag du lenn lu dul ab conférence de presse bu ñu amaloon nga xam ne kii di Aliou Cissé dafa waroon dem wuy ji ànd ak kenn ci équipe nationale bu sénégalais waaye nag dañoo jóge woon ci ab a naa nag joueur yi sonn moom mais di Aliou Cissé ne ba leen rek mu représenté leen foofee ca bi lépp euh, QG naka noonu nag mu daal di dem loolu nag metti waa FIFA yaakaar ne rek sénégalais yi respecté ko waaye ki nga xam ni nag moo di Aliou Cissé respecté ki nga yi ba tax na nag ñoom ñii lépp lañ ci nag xamaguñu fu ñu mujjee waaye lépp luñ ci jot a am nag ñeneen ne ko indi dëgg leen ko fii lay xewee euh, fii si seen YouTube SENactu TV. match Angleterre Sénégal bëri na ay coow ndax euh, ñi nga xam ne ñoo di waa Angleterre ñi ngi daal di euh, défavoriser équipe bi nga xam ne ñoo di Sénégal dem sax ba télé bii di l'équipe jot nañoo def ab plateau rek daal di éliminer équipe <laughs> bi nga xam ne moo di équipe bu Sénégal ba def seen pronostic ne équipe bi nga xam ne moo di France di dem foofee ca euh, final mondial euh, bu 2022 bu ñu nekk ñoom sax dem nañ bay wax ne sur le papier 99 pour cent de qualifiés ça appartient à l'Angleterre maanaam euh, bu dee ñaar bu dee 100 la 99 pour cent bi Angleterre lañ ko jox ngir rek mu qualifié waaye benn rek la ki nga xam ni moo di Sénégal daal di am rek ngir génn ci huitième de fila huitième de finale bi pour àgg ci quatrième de finale même sax ba seen coach naan man seetaan naa équipe bi nga Sénégal mais yoruñu lenn rek loo xamante ne mën nañ ko gagné équipe di équipe bu Angleterre tax na nag partout dans les réseaux euh, ñoom nag di minimiser équipe bi nga xam ne mooy euh, la Eto'o daal di génn daal di wax rek euh, que Sénégal jox soutien wam équipe bi bu Angleterre ndaxte am na yenn ci ay joueurs yoo xamante ni ñu ngi évoluer ci championnat Angleterre ci mel ni Iliman Iliman Ndiaye Nampalys euh, Gana Gueye sax delluwaat na Angleterre ak ki nga xam ne moo di Koulibaly maanaam ñu bëri rek ñu ngi xam nañu footballu Angleterre rawatina nag coach Sénégal bi nga xam ne moom sax jotoon naa évoluer ay temps ci li nga xam ne moo di championnat Angleterre ba tax na nag Samuel Eto'o nag mi ngi jox courage di soutenir gayndey Sénégal yi rek di leen wax ni ca kaw ca kanam rek ngir rek ñu jàll ci huitième de finale bi dem ci quart de finale a waaye laata loolu woy leen di abonné te bu leen fàtte di appuyer ci cloche de notification pour di mën a am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen rubrique fii lay xewee seen chaîne YouTube SENactu TV la chaîne au cœur de l'information